ca Ndar sëriñ Abdu nee na al waxaguma da de al ci laa yemagu mu ne Seydul Xaaji Malik nekk fa ak soxna Roqaya Njaay ñoom ñoo fa nekkoon du noonu soxna Roqaya la de waaw maam Majoor moo ñëw Ndar fekk fa Seydul Xaaji moom nag baayam Gumba Amar moom Cheikh Omar rek la gëmoon ci kaw suuf sëñ Abdu ne ne moom mosul yaakaar ne am na nit ku ñuy gam-gam lekk Cheikh Omar ci kaw suuf nee na mosu ko xalaat sax boo xam ne yii eh, Cheikh Omar daal moo fi nekk ba doomam jooju ñëw ndar Seydul Xaaji Malik di waxtaan ak moom ne ko naka njaar ne mu di ko nettali mu ne ko lan moo fa gën a am ci koom mu ne ko ah, góor gi la fa ne ci soow de moom ak meew du jeex mu ne ko dana toll jamono boo xam ne sax dañuy wàqi pax def ci soow mi ndax bañ loru maanaam wàqi pax ba mu kii rek def ci soow mi suul mu ne ko loolu yàq la di mu ne ko ah, jigéen jii de soow rek la bëgg muy soxna Roqaya Njaay te ku ko mën a defar la au lieu ngeen koy tuur moom bàyyi leen mu ñëw di ko defar ngeen di ko jaay moo gën tuur bi kon kii loolu lu mu wone Maodo déglu leen ma lu mu wane liggéey participer ci liggéeyu réew mi loolu la gëm ci jamono boobu nee na Seydul Xaaji ne ko ah kon booy dem yóbbaaleel soxna si mu yóbbaale soxna Roqee Njaay Maodo des Ndar bi mu yóbbee soxna Roqee Njaay mu def fa ñaari at ca njaar ne Maodo nekk ñaari at ca Ndar mu ne Seydi Hadji Malick toog benn bés rek sëñ Abdou Lamine moo ñuy nettali ci wékkaloo boobu mu ne jékki-jékki ne waaw man kat xaw ma lu ma dal ñaari at yàlla ma bàyyi sama soxna ci sa njar ne rek te xaw ci lu mu nekk naa naa takk nag seeti ko jigéen ñi yéen a ngi dégg waaw kañ mu takk nag seeti ko bi mu demee góor gi ne ko dugg nga soxla. man yow laa doon xaar dama foogoon ne Cheikh Oumar amatut ci kaw suuf waaye yow mii yaay Cheikh Oumar yow mii yaay Cheikh Oumar lenn rek a mën a am di fi toog ba ma génn àddina nga taxawu ma denc ma door a dem moo waral Maodo def juróom-ñaari at ci gàttal njaar ne ba góor gi génn àddina mu toppatoo ko defar ko denc ko toog fa ab diir yàlla indi xéewal xéewal bi mooy góor gi jibril toog ak góor gi jibril géey ay commerçant lañ woon waaye boroomi xam-xam lañu woon nag bu njëkk da ngay jàng ba noppi mu daan naa ko wax mooy bëccëg yi ngay gis bu njëkk bëccëg yi dañ daan mokkal risaala mokkal yépp di wër di bëccëg euh, suñ mbokk tukulóor yi di bëccëg laa xaw xawla wala bu njëkk bëccëg boo gis mokkal na laxdari mokkal na risaala mokkal na yépp di bëccëg am naa ci kenn sax ku sant jàmm mu ngi fii boori kër sala ba da daan di ñëw ci kër gii di bëccëg sama waa kër yi di jël bés ma fekk ko muy jàngale ci jàkka jële ci kaw ma ne ko àndi ah, ja mu ngi fii ba tey boori kër ajaa Sala ba fa la dëkk te ba léegi bàyyiwut bëccëg day bëccëg te boroom xam-xam la day jàngale en même temps Seydul Xaaji Malik yàlla def ñu ñëw góor gi Jibril Guèye ak góor gi Jibril Top ñëw ne ko si ñun ndey dañ bëggoon ko ñu defal tafsirul Quran ca Tiwaawan mu ne dégg naa leen ñu toogaat ab diir wax ko ko mu ne leen dégg naa leen ñetteel ba nag bañ ko ko waxee Seydi Hadji Malick ne leen ah bàyyi leen ma ñëw seet nuñ koy defee nee na bi mu ñëwee ñu wàccee ko ci kër mu ne leen may leen ma pàkk boo xam ne maa koy jëndal sama bopp nekkal fa sama bopp loo ciy déggee bañ a wéeru ci kenn bañ a doon dépendant Maodo indépendant la mos bëgg mosul bëgg wiiru ci kenn ci la fa toog ca Tiwaawan waaye lu jiitu loolu am na lu tax mu ñëw Tiwaawan loolu sabab bu àddina la waaye sabab bi nga xam ne mooy dëggi-dëggi sabab bi mooy li daloon rasulullahi moo ko dal da doon seet kuy këram mm-hmm. moo tax yonent bi jóge Makka dem Medina moo tax na tiijaan yi jóge Algérie dem Fès moo tax Cheikh Abdul Qadir Jeylaani dem dëkki Bagdad moo tax maam borom Touba jóge Touba ñëw Jurbel benn yu bu nekk dafa am fu sa borom di orienté orientation sa borom boobu nag sañoo ko bañ. li kulli waliyin ala qadamil mursal wali yu boo gis dafa am yonent bu mu teg ndëggu tànkam moo tax nga dégg Cheikhul Xaaji Malik daan wax ne yonent bee ma ëpp tànk gën ma ko yaatule waaye billaahi fu mu teggee ma teg moom yàlla daf ko suturaal ci ndëggoom mu ngi ko teg ci ndëggu yonent bi moom ndëggu tànkam kullu waliyin ala qadamil mursal ndëggu tànkam ci ndëggu tànk yonent bi la ko teg te daf ko waat nag ne billaahi yonent bee ma gën a gudd tànk moo ma ko gën a yaatu yaatule waaye billaahi fu mu teggee ma teg tànk bu mu teggi man Maodo ma teg waa ki nga xam ne bu teggee tànk nga teg bu toogee doo toog dama leen di laaj bu taxawee doo taxaw bu tëddee doo tëdd bu naanee du la doo ko gis moo tax Maodo mën bind miimiya <laughs> xilaasu zahab moo tax Maodo mën koo bind noonu mu mel ci rasulullah yi nga xam ne fu mu teggi mu teg rasulullah ko naan nii laa mel lu lënt mu ne ko jamono sàngam la woon rek radiyallahu ci ñëw boobu mu ñëw Tiwaawan sabab bi piir mooy li dal wali yi yépp moo ko dal barabam la ko yàlla woon waaye fi mu ko ko wonee la dàqi alquran moom Seydul Xaaji Maalik woy na ne huwal miisaanu kon natteekaay baa ngoog moom ci alquran lañ ko natt kaay tafsiral ñu alquran ndax dégg nañ sa tafsir ba ca ndar te dégg nañ ne ku mën alquran nga moo tax ñu bëgg nga ñëw defal ñu tafsirul quran waaye boobu nag fekk na yonent bi wan ne ko tiyaawan ne ko mooy sa barab waaye sabab bi nag fokk mu ñëw sabab bi moo jaar ci góor gi Jibril Géy ak góor gi Jibril topp est-ce que seetlu ngeen Jibrilun ataa ñaari jibril est-ce la ah? ah waaw kañ Issa Faye nee na Serigne Cheikh si moo ko daan wax nee na nit lu mu xamul ne hasard mu ne ay su fekkee hasard am nañ ko boole ci turu yàlla yi Serigne Cheikh si moo ko daan wax nee na nit lu mu xamul ne hasard la mu ne waaye hasard amul mu ne su dee am na nañ ko boole ci turu yàlla yi ci la bokk jibrilu ata maa la wax boobu ah maa la ko wax jibrilu ata ñaari jibril la ko ñëwal te luñ ko indil kaay firil ñu alxuraan ndax dégg nañ sa prix ma ca ndar ñu bëgg prix mu mel noonu fii ci Tiwaawan Maodo ne leen ànd naa ci waaye boobu fekk nag rasulullahi ne ko Tiwaawan mooy sa maqsad xam nga lu Tiwaawoon tolloo hmm. moo tax Maodo lu def par hasard ku weddi li may wax it ko boo amee oto bu baax nag laa wax demal ba ci rawdu Seydul Xaaji Malik ba ca Ndar hmm. ba ca ci Tiwaawoon nga gaare ci bunti zawiya bi chronomètre ko ba yegg si ci zawiya bii ci Ndakaaru 92 kilomètres net la Muhammad 92 kilomètres la ëppul yéesul Muhammad fi Tiwaawoon Muhammad fi Ndakaar Maodo di baagante diggante Tiwaawoon ak Ndakaar moo tax ba ko sëriñ Serigne kër si tàggoo moom Maodo moo xëy xëy ne Serigne Babacar si maag yow mënatuñ dëkk Tiwaawoon ànduma mooy sori ma ñaari kuy duñ bokk mbalka te sëñ Babacar ak cëram Maodo ak cëram naa la ko sëñ Babacar ak Maodo ak te Maodo xam na ne bu sëñ Babacar toogee fii ah du ci yegg nit ñi dañuy waxati rek yóbbu ma duñ dalante sax ay fokk am ko ci bosam apaisé wu ca Maodo dafa bëgg ñaar yépp tàkk moo tax Cerno Bachiru Tall waxoon ma ko ca Louga mu ne baayam moo ko wax ni bi sëñ Babacar bi Seydi Hadji Malick génnee àddina billaahi wal kitaabi mu ne bu Maodo amatoon cër ci yàlla Maodo fay na bu yàgg ndax mbay yaa ñu doy rek ngay dégg ci réew mi mu ne Cerno Muntaga Daaxa moo ko ko ne ko bi Maodo di door dem bu fekkoon ne Maodo amut cër ci yàlla mu ne Babacar Sy dana ko fay ndax bi Maodo di door a dem doo dégg dara lu dul mbay yaa ñu doy Seydi Aboubacar Bakar dara Daraman si doo seen morom mu ne loolu rek ngay mu ne loolu rek a ubbale réew mi dinaa ci ñëw ni ko Maodo wëlbate moo tax sëñ Babacar Sy sëñ Abdou nee na ba ko Maodo ne maag yow mënatuñoo dëkk nag ànduma mu ne ko ma dem cees mu ne ko dafa jegeeg Tiwaawan mu ne ko ma dem Ndakaaru mu ne ko dafa lënd mandi pareeguma fa tey la neex rek waaye boobu te Ndakaaru gi benn wëli yu ñemewu fi fanaan bu dul Maodo te dinaa ci ñëw ñoom góor gi pedar Jóob boobu ñu ngi fi ay lëbu waaye lañ yoroon ak li Maodo yor du benn alaaji Peedar Diop mu ngi fi woon alaaji Ahmad jaañ Daïra góor gi Ahmad Cissé Dagana <laughs> hmm? Maodo ne ko ndakaaru dafa lëndëmën yi pareeguma fa mu ne ko ma dem tëngiñ mu ne ko foofoo baax ci la sëñ Babacar ñëw installé Tëngéej mu ne ko saa yu ma la wooloo nag na nga ñëw mu ne ko waaye am na wali yu baax wali yu bu bu baax bu ñuy wax xaadi xaadi la woon ja euh, euh, xaadi aliyun ja ñu bari xamuñu ko parce que makkatal mukarram la gaañoo dafa aji woon des fa moo jur alaaji Omar ja bi nekkoon Tëngéej sëñ Abdou Lamine moo leen doon defal seen conférence fekke naa ko ba tàyyi xalifaam tey mooy Moustapha Dia at bu jot maay laajal jumaa ji ci conférence bi may defal Adja Mbayang maag Tafsir Abdourahman Gaye Mbayang Wàdd at bu jot ci sama wet lay toog may laajal jumaa ji moom mooy ilimaanu jumaa ja moom Moustapha Dia alaaji Omar Dia ko jur alaaji Omar Dia qaadi aliyun ja moo koy jur amoon na doomam bu dëkkoon fii bu ñuy wax jamal ja étage bële fa la dëkkoon léegi mu nga tëngee ñibbi na yor jabaru marocain pour nit ñi xam li may wax rek qaadi aliyun ja xaw ma ko waaye laa jomar ja moom xam naa ko bu baax yendu li naa ko ba tàyyi bi ci mujj keroog bi may yendu ji waxtaan wañ waxtaan ci baayam ba may ñibbi si kaala la ma may kaala gaa ngi ci sama armoire doomam bi ñuy wax jamal ja fekkee na ko qaadi alin ja boobu nag saa yu seydul xaaji malik sëñ babacar sëñ babacar si seydul xaaji bu ko woowaan sëñ alaaji seydul xaaji malik da ko ne saa yu ma la wooloo booy ñëw na dem ci góor gi aliyun ja qaadi alin ja mu jàngal la faatiha ak salaatul faatihi ndax yàlla nangu na faati faatiham ak salaatul faatihi na la ko ñaanal nga ñëw mu ne ko ci la yegg ne ko Seydul Xaaj Malik ne ko góor googu ku am cër la ndax yeggoon na ci bu ñuy wadifa ak bu ñuy xadara day gis yonent bi yàqadatan maaraay xar kanamam amatu ko Maodo moo raay xar kanamam amatu ko sëñ du nee na sëñ kër si ne ko waaw papa yow loolu nim neexee di gis yonanti bi xasatan bu toogee ci malaanu wadifa bi ak xadaratul juma nga raay kanamam xañ ko ko loolu lu tax mu ne ko damay bañ mu yem foofu yàqule ndax am na lu ëpp loolu te la ëpp loolu laa bëggoon mu yootu ko te ñun ñëpp loolu lañ bëgg ni ku ci xayaal sax maanaam xaw a gis tuuti luy niroog yonent bi kenn du dégg kenn du dégg bés boobu ñépp ding leen ko téléphoné dëgg la wala lu dëgg kii di xaadi Alioune Dia yegg ci di gis yonant bi yaqazatan ci malaanu wadifa ak malaanu xadara ak ñi muy àndal nee na am na bés sax dafa toog gis ku yonent bi joxoñ rek Seexuna Tijaan yi puus yal nañ ci yàlla musal nee na bi mu paree mu laaj ko mu ne ko Seexuna Tijaan yi mu ku ko yonent bi joxoñ daf ko naan kii bokkut ci yow na génn Seexu Tijaan puus kooku balaa dee dina génn tariqa am na ci ku ma ci xam ca ngumba du ma tudd turam sama goro bii njaaye jóob yaasin jóob a ngi noonu di dugg si njaaye jóob xam na ki may wax ca ngumba ngéewul ci ñiñ doon puus la bokk te mujj na génn ci tariqa du ma tudd turam xaadi Alioune Ndiaye yeggoon na ci maqaama boobu ku ko dindi Maodo Maodo raay xar amu ci faatiha bu mu ciy jàng nii la raay xar xanam bi rek gisatu ko tegal ci sëñ Babacar si ne ko dootu ko gis nag ilaa yawmil qiyaamati ndax dindi naa ko ci moom mu ne ko waa papa lu mu toll nii neexee nii nit ki am ko nga dindi ko lu tax mu ne ko am na lu ko ëpp ca kanamam loola laa bëgg mu yegg ca nit dayam kilifa ci la góor gi keroog bi Seydil Hadj Malick raayee xar kanamam gisatu ko keroog la ne Maodo ndekete woo nag dama foogoon ne maa la sut waaye doo sama morom ba muy dem Makka taggu xaj Hadj Malick Maodo ne ko yàlla xamal na ma ne doo delsi fa la mu nga ca Makka ñu suul dinaa ci ñëw lu gën a yaatu xaadi ja boobu ponkal la woon min kibaaril awliyaa yi pour wan la dama lay wan ne ñi ànd ak Maodo hmm. euh, dëgg la Maodo dalalu ci kenn alif baa mais dafa am lu dàq alif baa ki jàng ba yeggal xam lu ne yëg ne day taxawaalu ngeen baal ma ci waxin bi mais noonu rek laa ko mën a waxe ki jàng lu ne xam lu ne yëg lu ne mais yëg na ne moom dëgg dëgg day taxawaalu maanaam amul min ay na amul ilaa ay na embauché wuñ ko fen figuré wul ci liste yi fen day xëy rek gàddu téereem di seet ku mu mën a jàngal am na téléphone waaye amul ligne mujj gi am nañ liiñ waaye amuñ crédit mujj nañ am nañ crédit waaye amuñ réseau koo ci woo votre correspondant à ce moment inaccessible koo ci bëgg a jot rek réseau bi day ful lu ñu lay wax votre correspondant à ce moment inaccessible personne inaccessible noo koy jotee Maodo fexe bañ accessible lii lañ soxla woon ci Maodo ñëw parce que li uñ Cheikh di wax. boo dee wali yi te duñ la informé yaag wali buy taxawaaloo yem <laughs> mu ne wali yu buy taxawaaloo nga rek waaw Serigne boo dee te kenn du la informé wali yu buy taxawaalu rek mooy dëgg te wali ci booba ñoom wali yu lañ mais kenn du leen informé connexion bi jàllul amuñu information ñu bëgg information te Maodo du wax kenn ñëwal ñu dox ba yem ci Maodo Maodo jommal leen jox leen information. ah léegi nag ne leen dee leen partagé <laughs> mooy ku ne mu samp la barab sàngam duma ma tudd tur mais am na ci koo xam ne bi ñu koy indi ci Maodo boobu jàng na beneen ar mais dafa màndi benn tat duma ma tudd turam dafa màndi bay tërëf. te wali yu la woon Maodo yëg ne kii wali yu mais sàngaraa ko teree dem mu ngi naan benn tat diñ koy indi dañ ko téye Maodo ne ko ndax mën ngaa bàyyi sàngara mu ne waaw na yegg si duma tudd tur man bàyyi naa tudd tur yéen léegi dama màgg xar day weesu mbote léegi yéen itam dalal leen seen xel man màgg naa waaw ah, xar day weesu mbote hmm. gone day màgg nag yéen itam Maodo mi sax xanaa màgg nag kii laa tuddee Seydi Hadj Malick nit ki bu bàyyee léppam rawoo ko poo ko xam-xam mu ñëw di la déglu yaa moyen des soose mooy orma lii rek la du leneen yaa moyen des choses mooy orma yëg ne nit a ñëw ci yow hmm? yaa kon Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu taala anhu mag ñi ko wër jàngalu ñim ci jàngal alif baa bariwul waaye dafa am lu ëpp alif baa jàngal ba yi téere yi jàngal ba luñ la laaj nga tontu ci amoo kilifa doo dem te dinaa la ci jox ay preuve Cheikhul Xaaji Malik ci nekk ndaram radiyallahu taala anhu mag ñim xamanteel ñépp ñi ci ëpp mu ngi leen xam ba muy nekk ndar ñii ba muy nekk njaar ne ci la xamanteek ñoom ñi ci ëpp maam alaaji rawaan ngom bii seydul xaaju malik bi muy xamanteek moom mu nga ca ndar seydul maam alaaji rawaan ngom mu nga woon ca kër baara sàll kër baara sàll góor gu ñuy wax góor gi ma soogi sàll moo fa nekkoon man mii maa daan def conférence ba góor gi ma soogi sàll boroom xam-xam la woon wëliyu la woon dégg na Seydul Xaaji Maalik a ngi ndar di jàngale ñu wax ko ne ko Maodo am na benn téere moom amul téere bi góor gi mu ne soxla na téere bi yónnee ci Seexul Xaaji Maalik ndaw li ñëw wax ko Maodo Maodo ne ko dëgg la de téere baa ngi fi daaw ma am lee téere de waaye kooku de ñeme naa ko abal téere ndax yëg naa ci moom ragal yàlla ndax borom daara ji daan na wax ne xaw ma ku gën a ñàkk fayda ki àbb téere ki ko ko abal ndax ñaare boo ko defee doo coo ci jot te am na ñoo xam ne it boo leen abalee buñ xoolee page bu leen intéressé dañ koy xotti dugal ci seen poche aha booy liir ba yegg si fa rek dootoo ko gis ma ne ko léegi ni may def mooy dangay ñëw ma di la xool nga di ma xool ma abal la ngay liir wala nga sotti te loolu yombut man amatuma jot bi ma ne ko non lu ma la ko abal maa ngi diwaanu Oustaz Malick Guèye maa ngi diwaan yu bari mu ngi fii ci sama bibliothèque mais du ko able parce que dama ci am bés te borom daara ji waxoon nañu ko daan wax ne ku gën a ñàkk fayda kiy àbb téere ak ki ko koy abal man xam naa ci koo xam ne am na téere boo xam ne bi mu koy àbb sëñ Modou Fata Sakho bii nekk kër soose yal na ko yàlla yërëm sëñ Modou Fata da ko ne leen mën a am de nga toog fii ma di la xool nga di la xool nga di ma xool ngay sotti su guddee ma jël sama téere nga dem tëddi boo xëyee ñëwaat am na fa weeru yàlla di sotti téere bi noonu la ko sottee bi am kooku am na itte te xam naa turam duma ko tudd mais xam naa turam Seydul Xaaji Malik ne ko kooku de yëg naa ci moom ragal yàlla gu day ni góor gi ma soogi sàll ñeme naa koo jox sama téere dal dina góor gi yóbbu na mu yóbbu téere bi indi ko jox ko Seydul Xaaji Malik Maodo ci modestie ne ko may de dégg naa ne am na benn téere sàngam man awma téere bi soxla woon naa ko ne ko dinaa ñëw topp si téere bi ci moom Maodo jógee Ndar dem fekki ko kër Baara Sàll am fa 6 mois di topp téere bi waaye su ko góor gi di toppal téere bi su ñëwee di tari la muy wax góor gi ne ko si dangay jàng si wala dangay seet ndax mën naa téere bi <laughs> wallahi góor gi si da jàng si wala da seet ndax mën naa téere bi ndax yow li ngay wax a gën a leer li may wax mu ne ko wallahi sàll damay jàng góor gi ma soogi sàll moo jur góor gi maxtar sàll góor gi Maxtaar Sall moo jur ab du Sall bu Tiwaawoon Abdou Sall ñëpp xam nañ ko géer la woon sama xarit la woon man dong la ma sa ñëw sama tudd keroog ñëpp a tiit mosul dem tudd benn tudd Tiwaawoon kenn xamul Abdou benn façon nit la du demal xew kenn kenn kenn ku yàlla bind laajal li ma lay wax keroog bi ko ñoom sëñ xalifa si Baye Mbàkke gisee ci sama tudd ma muy sama doom bale ci Tiwaawoon biñ ko gisee ak ñoom siñ si di kunta ñépp a yéemu mosul dem tudd man la mos a demal tudd ndax révolutionnaire rek ca ëttam boobu la daan jaaxaan xam-xam bi muy yulli boole kooki saaga yoo xam xam ngeen ko Abdou Sall laa ilaha illallah xam-xam bee rëy mu daan dal fii riiceer daan na fa am weer ñépp fa lañ ko daan fekk ñoom oustaz mbaykaak yaay yooyu yépp fa lañ ko daan fekk mu yekk togg rek di yekk jàkkaarloo kër sëñ Babacar si bi ci riceer am na fa nangami at yoo xam ne Tiwaawan lay jógee foofu lay dal boo waxee mu ne lu baax laa bëgg ama sëñ Babacar si riceer Abdou Sall riceer <coughs> sama xarit la woon déggoo ma la man la ma sa demal tudd wax te naa ne yow mii am na lu ne ci yow te nekkut ci man li ci yow te newut ci man laa bëgg nga def ko ci man Maodo ne ko may ma ba dem te ñëwaat mu dem ndar si defaat fa 6 mois muy lan un an góor gi ne ko kaay nag ñu waxante dëgg mu ne mu ne ko bi nga demee laa yëg ne yaay sama kilifa di nga fi toog dimbale ma ci wàllu yàlla ba ma génn àddina nga sang ma sang ma jullee ma denc ma fooy dem nga door faa dem te dimbale ma ngir yàlla si booy dem sama doom ji nga yóbbaaleel ma ko sóobal ma ko ci yoonu yàlla sóob maarifatu billaahi la ci jublu Maodo gën a xam yàlla ñépp mu ne ko yóbbaaleel ma ko nga sóobal ma ko ñi may waxal xam nañ li may luy sóob suluk dafa am sóob am jazbu jazbu neexut surafaaw yi moom la ñuy am moo tax ñuy topp seen bakkan dem waaw ah, shérif yëpp jës bu la ñuy am. di nga dem doo yóbbu kenn te doo mën a yóbbu kenn nit na ndax da nga xëy rek gis sa bopp ci pale bi. xamoo lu la fi la fi xëy rek gis sa bopp ci palais bi ñu naan la voilà les toilettes voilà votre lit voilà le salon xamoo lu xew loolu mooy jës bi suluk nag dangay ngay jaar ci yoon wi dëgg yi nga di ko sekki. bant yi nga di ko toxal pakk yi nga di ko dindi ba yegg koy indeeti na ko moytul pakk bi boo demee ba àngal sàngam jàddal boo ko defut bukki yi reeree la looluy yu bi def sëyru <laughs> mooy wali yu bi def sëyru ki xam yoon wi moo la war a moo la mën a wax boo demee ba ba barab sàngam pakka nga fa moytul jëlal ndeyjoor jàddal càmmoñ continuer am na ku ñuy wax Ahmad Diagne ñii xam nañ ko ñoom bay di sàll ana bay di mu ngi fi dëkk Cees yóbbu naa leen fa ca jamono yi muy nekk Ahmad Diagne nga xam ne dof la woon nekk na ci mbeddu Cees yi di lekk bàyyi këram juróom juróomi at di lekk ci mbedd mbalit yi kees ñépp ne dafa dof xam nga ku ko orienté Serigne Cheikh Tidiane Sy Ahmad Diagne mu ngi Cees di yulli xam-xam yoo xam ne jamono boobu boo demee kër néegam dafa dessiné fi nit di jaar ba yegg ci yàlla wax la foo xam ne boo fay suruxee duñ la gaaw a gis ndax dafa làqatu nga yaakaar ni yegg nga fekk yeggoo ak fii boo fi daanoo kenn du la yëkkati yooyu yëpp daf ko dessiné woon te mu ngi fi Thiès Ahmad jaañ Ahmad Ñang Diagne lañ koy wax. dëkk Aiglon. ah kay. ah kon xam nga ko. Ahmad Ñang Diagne min kibaaril awliyaa yi jàppal. ah yaa ngi nii naan ah parce que Thiès nga dëkk te réeré nga ko. min kibaaril awliyaa yi ci wali yu mag yi la bokk. Serigne Cheikh ko feeñal. Ahmad Ñang Diagne. man ku bañ ma tudd la bul def lu baax ñépp lay tudd xam-xam ba mu yor bu la yàlla suturaalee ba mu dimbale la ci maara de itaali jamono boobu dafa dessiné ci biir néegam dafa dessiné boobu néeg bi boo fa duggee day lëndëm këriis ba ma koy fréquenté boobu kenn dafa xam Ahmad Diagne Ahmad Niang Diagne boobu kenn xamul ñaata at ma di ko fréquenté Thiès yow yaa ngi nii dëkk Thiès te réere <laughs> demal nga laaj ko min kibaaril awliyaa falaa daan du ci néegam boobu maag moom lu ne mu di loolu ko yullil ci yàlla Ahmad Ñang Jaañ pour nga xam yàlla def Seydul Xaaji Malick delluwaat kër Baara sàll def fa 6 mois muy un xam nga góor gi ne ko doo dem mu ne ko lu tax mu ne ko sama doom jii ñuy wax Maxtaar Sall moom laa bëgg nga sóobal ma ko ci yàlla mu ne ko kii nag juruma ko de waaye sori na ci man muy alaaji rawaan ngom mii dama bëgg nga boole ko ci muy maam rawaan ngom bu paal foofa la xamante ak Cheikhul Xaaji Malick ca kër Baara Sàll Maodo di ñëw indaale leen ba muy xam Maam Alaaji Rawaan Maam Alaaji Rawaan taalifoon na ay téere keroog bi mu gisanteeg Seydul Xaaji Maalik la ne li ma doon ut ci yàlla sama sëriñ nee na mu ngi ci góor gi kenn dootul dégg xaala Rawaan xaala Maalik jeex na dal di gas ba mu xóot suul lépp lu mos a taalif mu suul ko boo demee paal ba léegi danañ la woon fa mu ko siwloon yiir bant yiir yaa nga fa ba tey kenn ñemewu ko laal mu ne xaala rawaan xaala maali kenn du ko dégg ommatuna topp ci gannaawam moo tax ku ne maam Alaaji rawaan du taalibe Seydi Hadji Malick da ngay kàcc da ko yéene wut Malick rek Seydul Hadji maam Alaaji benn yoon la mos a wax ne tooñ ngeen ma ñu ne ko lu tax dafa dem màkk soxna mucc gannaawam ñu ne ah xamuñ kuñ koy tuddee waaye nim bëggee ni mu bëggee Seydul Xaaji Malik ak ni mu ommatoo topp ci moom dañ bëggoon daal buñ ko ko tuddee du mer ñu tuddee ko maam Alaaji Rawaan ñu tuddee ko maam Alaaji Malik gannaawam mooy Alaaji Malik Ngom bi ngay dégg doomam maam Alaaji Rawaan ñibbi si ne ku ngeen ko tuddee ñu ne ñu ne ko maam Alaaji Malik mu ne tooñ ngeen ma ba ci kanami yàlla day mel ni maalik sama nawle la moo tax ma di ko tuddee doom Malick du sama nawle waruma koo tuddee doom <laughs> seetal fi muy dégg dégg-dégg nitu yàlla tooñ ngeen ma kër gii Malick di fi daagu ngeen di wax maalik di ca teg safaan Malick du sama nawle day mel ni damay nawle wan moom dal di ne waaye bàyyi leen ko ci comme tuddee ngeen ko ko ba noppi waaye tooñ ngeen ma ba ca kanam yàlla seydul xaaji maalik gi delloo ko mbàttu ca daala alaaji abdul aziz dabaax nee na cheikhul xaaji abdul aziz dabaax nee na seydul xaaji maalik mat mu mos di togg añu këram ak añu daara ji maam alaaji rawaan a ko indi ba léegi waa paal paal dañuy taxan di indi mu ne maam alaaji rawaan ne leen li tax ma taamu mattum alaaji rawaan mooy ragal yàllaam du damm mattu jàmbur du taxantoolu jàmbur du indi lu yàlla nanguwut moo tax dimbale leen ma luy tàkk ci kër gi muy matt nay doon mattum alaaji rawaan mu ne ba bés am na matt mi jeex te mattum paal ñëwagut mu ne yàlla natt soxna safiyatu ñang mu am gan ci diggante bi xool wanag wi matt mi jeex boo boobu buur ba jolof mayoon na ko lalu reposant bu rafet nee na mu yëkkati pajaas ba teg jël lal ba tojat ko def ko matt toggalee ko Maodo ganam yi añ maam safiyatu ñang woy jëru Cheikhul Hadj Abdou Aziz alaaji Mansour alaaji Habib ak seeni jigéen ñu yekket pajaas ba teg fële tojat lal bi toggalee ko Maodo gañam yooyu añ ba añ bi sotti Maodo laaj ko ne ko matt mi fu ñëw ba nga toggee ko añ safiyatu mu ne ko mattum paal day yegg seegul mu ne ko mbaadu danga jël meneen matt mu ne ko déedéet si xalaatuma ko te ñemewuma ko mu ne ko safiyatu ba matt nga toggee mu ne ko si lal ba may wéer sama ndigg as tuuti rek bër jaru ko buur ba jolof fa ko mayoon di sama càmmiñ te yow ci sa loxo la jaar ma teggi pajaas ba rek pajaas ba mën naa ca wéer tuuti sama wet lal ba laa tojat toggee ko añ xanaa dagan na ma Maodo ne ko dagan na la waaye ni tàkk tàkkal safara mel sa doom yëpp dañ ko tàkk leer na leer na nañ alaaj ab du tàkkul alaaj Mansour alaaji Habib lii soxna Safiyatu Ñaŋ defal na ko Seydi Hajji Maalik